Bonsoir tout monde, bonsoir everybody, bonsoir MBSA, bonsoir Mbora. Voilà gars, on est en Thermorespect 5e édition avec ma man Machiavelli. ñu woon ifi am amaan na fi nag le 23 décembre 2023 voilà ñu ñëwaat fii ci 5 édition ba tax na tey ñu wàcc yoo localité fi lan gars nan dugg ci bi ñu xool Machiavelli lu mu indi nan dugg ci bi ñu xool artiste yi tey la tey tey bu ñu yomb dañ koy ba ak Machiavelli indi stade bra

What will be gars yi comme ni ma waxoon nee naan tey fii dara day yomb ak Machiavelli jox ma fekk show cinquième édition voilà ci bi lañ dugg gis benn ndaanaan une réponse de nom de Malick Sène Fadiga tey Malick ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw sëñ bi sinon. maa ngi góorgóorlu. la nga jógee Dakar ba fii teewale bés bi Machiavelli ñu bëggoon xam sa kóllëre yaa Machiavelli lan la. waaw Machiavelli ak moom. yàlla dafa def ne ñoo yàggoo ci waat ñu sëy depuis seen petit gars yooyu ci waat moo tax lii nii bu amee man dama koy rafetlu tey mënu ma bañ a ñàkk ñëw ci événement bi quoi. voilà tey li ma woon xam tey bi nga ñëwee tey ci seen tey loo lan nga yëg. kontaan kontaan parce que lii nii rek dafa eh, su kontaan quoi parce que lii nii rek dafa naan ci waa Mako woote mbor yëpp génn xaw mënu ma mënu ma def lu dul kontaan ci quoi. voilà léegi li ma woon xam yow lan ngay wax peuple Mboro quoi. yooyu dañoo wax ñu gën a jàppale gars yi rek parce que gars yi moom ma metti na vidéo metti na xam nga nañ gën a appuyer gars yi rek quoi. voilà léegi yow lan lan mooy sa mot de la fin. waaw di leen wax déjà am na luy ñëw demain wala ginnaaw suba ça dépend quoi tu vois di leen wax ñu xaar ko incha allah Sénégal la ñuy la ñuy yëngal quoi. voilà kon merci beaucoup kon voilà gars yi comme ni la ko waxoon rek dañu dugg ci biir xool artiste yi xool ndaanaan yi ñu tëkk la si micro ak Vital TV te nee nañ jox ma super dara yomb nan duggaat ci biir gars yi kañ. na ko xel di fikk yóbbu na jàpp liggéey bopp yey tàkk ci sa brin ci fab la jàpp liggéey broli manto di dégg di bi li bon sax rek ñoo na dégg nañu encyclopédie sa dictionnaire def bi mel dictionnaire ngay bu bu fi jaar la bi dañ ay sa ci solo play ak ko ci verbe ma ci ñu

Yeah, że weź każdego perłowca, który z Uralgejem fajfem Tego głowy fem, tego perki tempy, nerwy i nawet dofem Cały tego słowa na dofem No bo głowy też ma obróci, ale obróci każdego foksi Nawet go wora fajna podłogi Samochód, a mój kasa nie znaczy Samochód do gry na wywaranie Nie będzie tego na jego ramię Kto pogrywa, co go mój kas Ile będę wypytam, no more pas Ja na tego, go będę wysychać Chcę teraz Ndiagaay ba léegi nag nga jox ma rek soo cinquième édition ñu ngi fi tay ñaari ndaana yo xam ne ñoo jógee ba Dakar ñëw ba fii nii pour teewal ci Machiavelli voilà gaay yi ñu ngi lay siyaar. da delloo siyaar King Dima Valley in the building. sino naka tay waaye nice au calme. bon ñëw ci concert bi xam nga avec Machiavelli bon comme niñ ko waxanté won rek. on a su mettre le feu. waaw yaa ma gën a xam daal waaw. <laughs> voilà tey bi nga ñëwee tey seen émission tey loo yëg tey. bon déjà feeling bu graaw la parce que déjà gëj naa gëj naa MB Sadj xam nga kon ñëw dund ko ak xam nga people bi gars yi man loolu daf may neex waaw. yaa ngi comprendre sama Sadj la di ko représenté daf ma neex MB Sadj forever bro. voilà gars yi nañ ci équipe bi équipe bi ñu ngi lay ñooy siyaar waaye ñooy dellu siyaar aussi King Diamant ak Vital TV ak tamit Machiavelli bi ñu invité tey si concert bi jox ma respect donc avec Mbissane la maa ngi ñaanal gars yi ñu gën a yokk dooleel pour booy et aussi kontaan si yéen tamit quoi parce que gis nañ taxawaay bi mooy nice mooy nice mooy nice. voilà léegi ñu bëggoon xam sa sa moo rek. bon di content si jour bi journée bi euh, kii bi euh, concert bi et tout parce que bon lii Mboro dañ ko soxla en plus ci mois de fête la ñu nek xam nga donc yoon la bon ñu dundul li quoi xam nga dund ko en famille dund ko xam nga avec toute la population mboroise yo mu ngi nice dal mu ngi cool comme tout temps xam nga Machiavelli xam nga ca kaw ca kanam bësoom bi xam nga comme ni mu yàgg mel la mel voilà di di eh, eh, équipe bi ñu bëggoon xam sa mot de la fin rek. waaw mooy mooy bëggee waat gars yëpp bëggee waat encore tamit famille bi. gars yi incha allah dinañ gis ni tamit gars yi ñoo ngi avancé par benn benn. gis nga son yaa ngi ñëw gars yi tamit dañuy waaj loolu noon ñu xam ne tamit bientôt ñu def lu nice ñu seen kanam et tout. incha allah bientôt ñoo def lu baax pour ñoom quoi dinañ ko xaar. merci beaucoup Didi eh, allez merci beaucoup voilà gars yi Didi lañ amoon noonu nañ duggaat ci biir xolaat yeneen gars yi ñu tasaarewaat gang

Yeah.

Yeah. Dixon. Remember Tim Dixon. Gonna go down system. Give it pop, you don't get Dixon. Then I shine up, God said, double dodge, I'm a shine on a six system. Possession up in you, then put your neck, woman, you can't bust this thing. Look at my rock, you won't

What Yeah.

ça s'est bien passé et que j'espère que liñ ci am am nañ enseignement yu positif yo xamante ne tirer nañ ko quoi pour l'instant loolu la mëna wax dila baye xam nga rek ak lu mëna dem baax. voilà léegi gars yi nga néna na la mëna wax léegi Moussa Ba ñu bëggoon xam actuellement tay naka ngeen préparé tey show bi ba yegg si waaw loolu mom damay kontaan pour wax ci quoi déjà bala avant tout damay remercier toute la population de Mboro duma duma duma lim quoi parce que suñu limé rek djum parce que ñëpp si jàpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ba si yow tey dima gis nañ taxawaay beeg affaire yoo noonu bokk nga ci ñi gën a neexal show bi quoi donc dafa dem dafa nekk loo xamante ni nekkatul mbiru Maka Mbi Team wala Maka Wely kese. parce que ren jii nii soo xoolee dañoo demoon ba benn instant tardivement la promo yi sax commencé génn quoi ci lañ ci commencé on s'était dit que ni sax duñu duñ ko def quoi. parce que ak ak conditions yi nu mu demee et tout parce que bëggoon nañu focus ci yeneen ci ay clip préparé benn projet pour 2023 bi et tout ça peut man koy wax nii sax mu war nekk coupe donc mais demande bi moo fooroon quoi tout le temps gars yi duñu laaj kañ ngeen di dóor kañ ngeen di dóor gisaguñ dara gisaguñ dara après on s'est dit que ni pourquoi pas ne après ñu dem on a on a voulu faire beaucoup nag mais soo xoolee ak temps bi nu mu demee ak yenn empêchement yu bëri yeeg affaire yooyu noonu moo tax tey jii nii sax mu xaw a mën mu xaw a demee nii quoi mais bu beneen yoon te allah en tout cas li ñuy wax rek am nañ ci enseignement yu positif quoi instant bi nag réaction à chaud rek la mën a nekk moo tax ñuy waxee nii quoi. voilà gars yi kàddu def na trop vraiment kontaan kontaan naa trop léegi nag ñun ñu bëggoon xam si mot de la fin lan la. waaw mot de la fin peut ni ma commencé vraiment peut wax ci micro dafa yombul deja c'est la première fois peut-être ma koy def ak ak yi nii quoi donc di remercier mbooro yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp au nom de Machiavelli vraiment mu nekk loo xamante ne nii sincèrement ñun kontaan nañ ci quoi et eh, Maka Maka Maka Vélez mu nekk ci loo xamante ni ñun kontaan nañ ci trop trop trop trop trop comme li ñuy wax rek peut-être ñun mun nañoo mun nañoo jàppee suñu bopp rapport mu ndaw ba léegi parce que ça reste beaucoup de choses à prouver quoi peut-être nekkuñu ñu nekkuñu ci ndaw ci game bi fii nii mais ça reste beaucoup de choses à prouver et que loolu noonu tey peut-être mën nañoo wax ni bu ñu amee doole peut-être waa mbooro si jàpp waa mbooro peut-être. man maak man maa koy remercier ASC am e waa koñam gars yi jàpp nañ si. am na si ñoo xamante ne bu kiiwee sécurité bi sax dañuy ñëw daan ne ko dama koy def gratuitement ñeneen ak ñeneen donc mu nekk loo xamante ni comme li ñuy wax rek nekkatu suñu mbir quoi mbiru Mboro la kon maa ngi remercier ñëpp di remercier Vital TV tamit gis nañ bu baax seen taxawaay ci affaire yeeg e tout di leen wax ne nag soxla nañ leen quoi rendez-vous prochainement ngeen toog artiste bi xam nga ñu gën a waxtaan quoi jaajëf di leen remercier bu baax. merci beaucoup Moussa merci beaucoup. voilà bi commencé staff mu akabeli ba léegi nañ dugg ci biir xolaat gars lu ñu am ak Just Mod Speak Show cinquième édition tey dara du yomba. waaw ma ne gars yi liggéey moo leen di téye parce am na ñoo xam ne suba dañuy liggéey dañuy bëgg a ñëw concert bi mais duñ mën a ñëw bari na ñoo xam ne ñëw nañ fi taxaw porte bi lu yàgg concert bi commencé wul après ñu mujjee ñibbi. parce que mbooroo comme li may rek des fois day naqaree tëgg programme parce que gars yi léegi dañu tàmm guddee ñëw te am na si mag ñoo xamante ne yi ñëw ci concert bi peut-être du ñu rab sax mais Machiavelli moo leen fa andi quoi xam nga samay nit la ñuy doon mais tey ji am na heure bu muy tool rek ñoom dañuy ñibbi loolu daal moo nekk problème fii mbooroo concert yi day guddee parce que boo yi nga xamante ne ñooy yëngal dañuy mujj dañuy yéex a ñëw rappeurs yi tamit dañuy yéex a ñëw waaw c'est problème quoi loolu daal des fois mooy xaw a gàllankoor mais daal dañuy sant yàlla rek. ak lu mën demee dañuy sant yàlla parce que concert bi même pas un mois la bi parce que naruñu ko woon sax ren mais gars yi ñoo ñu ko ñaan dañu ko ñaan ñu ko ñaan te tàmmal nañ leen ko faaw ñu def ko quoi. voilà gars comme ni ko waxé non même pas un mois la préparer concert bi tey yàlla def na tey bi Machiavelli dafay concert bi tey gis nañ fi ñoo xamné ne mosuñu la gis tay honorable député Ndiaga ñëwon na ak wa maire bu mbor ñëwoon na tamit gis nañ tamit mbor ñu ba tay répondre nañ tay Maka ñu bëggon xam tay ji Maka tay naka nga def ba organiser programme boobu ak tamit lan moo tax nga organiser ko ci digënté même pas 20 jours yoy li tax ma organiser ko sang wax naa ko dañoo ko def chaque année ren ne lu ñu ko won def sa dafa am ci affaire yu ma nekkoon yo xamante daf may xawa galang kor quoi du mu meuna def programme bi naru ma ko def à chaque fois ma ngi jotay appel ak ay message gaay yi ma ko wara def dang ko wara def dang ko wara def xama rek amna foy tollu nek nekk artiste sa bop quoi te say sa public fa nga jox leen li nga xamanteni mom lañ bëgg parce que lolu moy yoon parce que tay ji ñom ñoy dem sa YouTube di sétan say affaire ñom ñoy dem si yenen plateforme yi di déglu say affaire ñom ñoo lay support c'est très normal nga defal leen liñ bëgg bo xolé concert bañ ko forcer concert dañ ko préparer ay 3 mois avant 4 mois mais bo xolé même pas 1 mois lañ ko préparer mais loolu lepp liñ tax ñu def ko moy bëggal wa Mboro kessé moñ ci duggal parce que defatuñ concert pour ñun quoi suñ ñaan nañ yalla tay jini dépasser fi yépp mais buñ ko défé rek pour bëggal gaay kessé la quoi pour gaay content ñaga bi nga wax ni ñëw na tamen grand ñaga ma ngoy sande bu baax parce que grand bu cool yombul nga nek autorité xama sa tank oyof ba nga mëna ñëw ci genre affaire yi ba fi nek ba yeen heure yombul. ma koy sant bu baax a baax waa mairie aussi tamit comme ni nga ko waxee maa ngi leen di bu baax amaana tey jii des fois mu ngi leen a bañ a gis programme kon soo leen gisee sama bos rek damay santaat yàlla eh, loolu la demee. voilà gars yi kon ñoo ko déggandoo léegi ñu bëggoon xam tey jii tey lan ngay wax tey waa Mboro. waaw ah, waa Mboro xanaa di leen ñaaxaat rek na leen conseil yi jeexagul des na suba am na fii la Lam Star le 24. Aéro Boss le 25 yaakaar naa le 27 Gucci. le 29 Djina Mbed te yooyu yëpp ay programme waa la na waa Mboro génn jàppale artistes yi quoi parce que lépp lu ñuy def pour ñun à chaque fois dama koy wax pour at pour gars la pour gars yi déglu kese la tey jii bu doon ñun ak ñun rek dañuy def suñ son ko yóbbu ko YouTube wala yóbbu ko ci plateforme yi taxaw di xaar mais pour bégal gars yi xam nga lii dafa doon benn rencontre boo xamante ni après day doon genre retrouvaille quoi parce que kenn ku nekk ki nga doon gis di nga ko gis ci am solo loolu kese la di leen ñaaxaat ne leen gars yi doomu Mbooro yi ñoo ngi teg ay programme ay events na gars yi ñëw jàppale leen may leen doole waaw lool rek laa mooy sama dernier moo di sant ñëpp nag waaw di leen wax ni kontaan naa quoi waa di leen sant waa Vital TV aussi tamit. voilà gars yi xam naa nag dafa sonn quoi mais incha allah dinañ dajawaat. ñu waxtaan si ay programme après conseil bi lan ak lan lay préparé gars yi incha allah nañu ak Machiavelli sur Vital TV non vraiment eh, ma sànca bi ma sànca bi man bul ma jël de mais jëlee sa waay tey li mu sàncee est jël jëlee ma li mu sàncee ma li mu sàncee jëlee man déggoo ma la de su ma organisé concert sama bopp kaana bi sax bu jógee fee bu ñëwee du ma gën a takk <laughs> waaw dama xam nañ koy aligné quoi yaa ma gën a bandi la voilà gars yi kon tey fa laa ko tëjee ak band bi di leen jox dig daje ak concert décembre yi ak Vita TV ak King Dima Avenue ak waa Mbora pare leen tey pare leen pare leen pare leen ñoo ngi ñëwaat keng keng